ñuy compétir donc ils étaient très nombreux donc euh, tey ñu am fii cinq ñi nga xamante ne ñoom nañ tànn parce que ñoom ñoo def performance yu gën a rëy moo tax ñu dajale leen fii mais il faut savoir que lu si gën a am solo gën ñu si neex ñun waa Kirène mooy que dafa toucher région du Sénégal yëpp donc parmi ces jeunes là il y en a un qui nous vient de Saint-Louis ok euh, un autre qui nous vient de Kaolack et un autre qui nous vient de de, la région de Thiès plus deux de Dakar. Donc c'était super important pour nous, Fateli Lolo. Pour ni Wahni Jebi, on a donné à tous les jeunes du Sénégal leur chance de rêver. Et ça, c'est grâce à Kiren. Donc euh, j'aimerais que Nyop euh, saluer l'initiative Bobu. Euh, ngeen tàcc groupe Kiren bu baax si initiative bu mu jël pour jël benn jeune yóbbu ko Europe donc euh, sans plus tarder euh, on va démarrer le jeu parce que mu commencé ngoon mu ngi commencé lëndëm donc juste pour vous rappeler comme Pape du mu ko waxee donc le jury il est là impartial ah ñëpp dañ fi nekkal c'est fair play ces jeune yi se connaissent donc euh, loolu moo ci gën a neex donc euh, ñu applaudir leen parce que ñun ñëpp benn lañu ku gagné c'est le Sénégal qui gagne c'est un jeune Sénégalais qui voyage à Paris et il va retrouver un autre Sénégalais qui est ambassadeur de la qui est Idrissa Gana Gueye muy une grande fierté sénégalaise donc moom nañuy dem fekki ay doomu sénégalais ñooy fekki beneen sénégalais donc c'est le Sénégal qui gagne Mesdames, Messieurs, après concertation des membres du jury je signale qu'il était au nombre de cinq ku ci nekk joxe nga note keneen yëgu ko ñu pare ñu calculer ne en cinquième position avec une enveloppe de cent mille francs CFA Adama Ndiaye on l'applaudit très très fort cinquième position avec une enveloppe de cent mille francs CFA en quatrième position Cheikh Ba avec une enveloppe wax kii dem Paris Et... mais quelqu'un va gagner dina am kenn ku gagné ci ñoom ñaar kenn kuy dem pari kan la nar nekk nekk de cette grande compétition qui a duré plusieurs mois déjà à travers les réseaux sociaux on avait plusieurs dizaines de candidats et à partir des réseaux sociaux le public a plébiscité à travers les commentaires les partages et les likes pour booster leurs candidats aujourd'hui nous avons cinq winners cinq gagnants. Et ces cinq gagnants ont été jugés par les meilleurs des meilleurs. Un jury de qualité où il y a Henri Camara, on n'a pas à se faire de soucis. Et pour la transparence, Kiren a fait euh, de telle sorte qu'il y ait un représentant de la loi pour que tout se passe dans les plus euh, cool des règles, normalement. léegi nag wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndañ tàlli on m'a donné on m'a demandé de dire qui est le vainqueur mais ki nga xam ne moom la ñu gagné ñu ci nekk jot nañu seen loo ñoom ñëpp ci ren waaye ki ñu gagné dafay am enveloppe de cent cinquante mille francs CFA ki gagné moom mooy am passeport visa billet d'avion aller-retour Dakar Paris Dakar dem seetaan match Idrissa ganna Gueye échanger ak moom Parc des Princes exactement bu fekkee dafa feebar wala mu corona mun naa ko demal pour ñëw nettali ko aussi c'est bon suspense jëg rëkki rëkki jëg la la la la Mesdames et messieurs, le gagnant de cette prestigieuse contour organisée par Kiren s'appelle Birane Daf Birane Daf félicitations sur les cinq membres du jury les trois ont voté pour toi et les deux ont voté pour Hot li yàlla di def c'est moi qui a pu remporter ça bon c'est pas parce que je suis meilleur mais c'était juste une compétition lii la yàlla dogal en plus aussi on a travaillé dur ça fait des années que je parte à des compétitions et voilà peut-être que lii la ma yàlla dencaloon je suis trop content kontaan naa trop. naa ko depuis trois ans quatre ans mais ma ci woon au dama ciy dugg di ci génnaat affaire yooyu waaw. j'ai 17 ans. 17 si, si. bien sûr parce que je rêve d'aller représenter le Sénégal un jour Inch'Allah et même être champion du Sénégal un jour Inch'Allah si Dieu le veut. ba au début xaw ma woon sax li xew damay toog ñu may envoyé ay lien Instagram j'avais pas vu après du coup gars yi di insister ma ne peut-être que c'est quelque chose d'important ma dugg seetaan vidéo bi après ma bàyyiwaat rek sama gars yi ñaan ñi ma dëkkal ñoo ma fekk sama gars su suba ngoon di ma yee jugal la ñuy defi vidéo on n'avait même pas prévu ça on a fait ça en une seule journée en plus am na ñu bëri ñu ma doon encouragé di ma naan demal defi vidéo demal defi vidéo du coup ma yeewu def vidéo fàtte même jour bi ñu may sélectionné di ma ne je fais partie des cinq gagnants kii moo ñëw ba suñu kër fekk ma mu ne ma ah, kaay xool lii tu fais partie des gagnants et voilà c'est venu comme ça quoi. donc salaamaaleykum euh, tur bi Abdelkader Coulibaly la euh, man maay euh, responsable marketing opérationnel groupe Kirène donc tey ñu ñëwoon fii si li nga xamante ne moo. tënku woon ci jeu concours bu ñu lancé woon euh, mu duré un mois donc on l'a lancé depuis euh, le début du mois de novembre donc on a fait des publicités partout pour jeunes yëpp mën ko jot donc raison pour laquelle ngeen gis tey jeunes yëpp participer partout fii ci biir Sénégal ci région yëpp lu ci mel ni région yu mel ni yu gën a reculé Saint-Louis Kaolack donc loolu lañ ci doon ut pour Sénégalais yëpp gis seen bopp jeunesse bi yëpp gis seen bopp donc tey nag moo nekkoon euh, finale pour nga euh, départager ñi nga xamante ne ñoom ñoo qualifié woon euh, ñoom ñoon ñoom ñoon tànnoon parce que ñoom ñoo gënoon jege li nga xamante ne mooy ndam li tey ñu ñëw fii euh, ñu jongante ko si fair play ki nga xamante ne nag moom mooy Birane Daaf moom moo génn gagnant donc ñu koy remercier bu baax di kontaan lool si sunu partenaire bi nga xam ne moom nañu àndal muy Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ne moo waral lii yëpp moo tax jeunes yëpp tey jóg euh, bugg réussir mu nekk un modèle donc Kirène en général si loolu lay dox day jël à chaque fois ñi nga xamante ne ay modèle nañu euh, jeunes yi bu ñu xoolee si ñoom dañuy réussir pour rek mu bañ a nekk loo xamante ne day euh, nekk publicité en général wala wut xaalis kese donc si li nga xamante ne suñu wàll la ci RSE bi dafa baax aussi ñuy gunge suñu consommateurs yi ci genre yi ni mel. ba kontaan rek contentement rek laa voilà. <laughs> dama kontaan rek et aussi il y a quelqu'un qui devrait être là qui n'est pas là aujourd'hui qui s'appelle Alvin c'est grâce à lui que je fais du freestyle football je le salue maa ngi koy nuyu bu baax a baax parce que lii yëpp moom la moom moom ma fekk dama jàpp mënaguma sax tëlbal mu may ne nii la nii la tour du monde après ñooñu ànd depuis des années yàgg na nekk fii ak waa Kirène mais année bi nekk fii dafa voyage man j'ai 16 ans là filmel ma ni film yan motivation ah instant moom di kontaan di kontaan rek ndaxte ah instant yi di xaar rek lu yàlla dogal yu ànd ak moom ñu xam ne loolu la yàlla dogal et aussi maa ngi remercier ñëpp suñu waa kër comme ñi sama xarit yi kii sama rakk la chaque jour mooy ne dafa waroon jàngi sax mu dama tey jàngiwu ma yow laay àndal et tout jëpp tamit ñu bari dañoo yaakaaroon ni dinaa ko mën a gagné waaw. Euh, je pense que Kader wax na yëpp ah jeu bi jeu digital la gis nañ ni léegi jeunesse bi ils sont très créatifs ci wàllu euh, ay vidéo ci wàllu social media. donc euh, critères yi comme ni mu ko waxee amoon na technicité bi amoon na rafetaay vidéo bi amoon na en fait du technique kese parce que bu doon technique kese tey yaakaar naa ni ay professionnels lañ fi am. donc jeu bi dañ ko jagleloon amateurs yi mooy ñi am euh, passion football freestyle parce que xam nañ ni jonglage amul euh, fédération donc euh, passionné de jonglage yëpp genre wu jongante yi kese lañu mën a am pour gagner si loo xamante ni am na fulla am na fayda donc loolu moo tax ñu tànn si kenn jeu bi jeunesse sénégalaise bi yëpp participer na am nañ lu ëpp 80 participants à travers les réseaux sociaux loolu yaakaar naa ni chiffre bu conséquent la parce que du ñëpp a mën a jongler euh, Sénégal donc euh, ñu euh, extraire ci cinq talents yi ngeen gis fii tey voilà jongler nañu bon benn gagnant moo am mais ñeneen yaakaar naa ni yóbbaale nañ paas. <laughs> trop trop comme ni mu la ko waxoon donc Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp participé nañu donc jeunes yu région yëpp yëpp yëpp yëpp gox yi gën a sori biir Dakar tey final bi gis ngeen am na ñu jóge ba Saint-Louis donc jeunes yu si participé woon bëri na trop trop trop trop trop. critères de sélection yi euh, donc euh, jeu bi wàllum digital la donc euh, da ngay def se vidéo. Euh, nga jongle boo jongle nga filmer sa bopp donc euh, ci biir euh, critères yi nag dafa waroon am rafetaay bi ak technicité jonglage bi mais maanaam mën-mënu football bi musique bi ngay def vidéo bi donc xam nañu tey réseaux sociaux yi dafa bokk loo xamante ne si vie jeunesse bi mu dugg ci bu baax a baax a baax donc ñu jëloon benn façon rek pour ñoom ñu am si utilisation boo xamante ne day utile loo xam ne dina leen mënal dara indi leen dara moo tax ñu lancé leen jeu concours bi ñu jaarale ko si digital bi nga xamante ne c'est très très très utilisé moo tax euh, voilà noonu la demee daal. donc perspective ki ren tey ki ren euh, mën nañu wax ni bon lii defuñu ko pour am notoriété parce que ku wax ki ren ku wax eau minérale rek ki ren euh, eau minérale ki ren ngay xalaat Sénégal donc lii luñ si jublu c'est plus. Euh, réaliser des rêves gëmloo jeunes yi ne tey nga am passion nekk si euh, dëggu si mën na la yóbbu feneen mën na la gañeloo euh, gëmloo leen ni que rêve ak passion dañ koy dund donc tey voilà donc loolu moo ñu indi fii ànd si ak suñu partenaire Idrissa Gana moom tamit euh, jàpp si jeu bi d'ailleurs jeune bi dina am chance toog ak moom waxtaan ak moom laaj ko euh, lan mooy les clés du succès passer du temps ak moom demul France rek pour foo seetaan match ñëwaat voilà donc di jeu yi yëpp programme yi dina am ay suite après dinañ euh, leen topp incha allah di ngeen gis suite bi daal